salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kilifa yi ñoo ngi leen di nuyu leen siyaare leen jot nuyoo bu Cheikh Mamadou Mountakha moo nu fi yónni woon ci bis bi ngir di wax ne yëg na bis bi ndaw yañ fi yónni woon ñëwoon nañ tax na it bàyyi na ci xel lool xam na ne kër gi këram ma bis bi bisama ndax xam na ne cër bi fi am bépp jox nañ ko ko jox nañ ko cër bi mu fi am bépp moom it téye na ko bu baax a baax ba tax na kon mi ngi leen di jàppal loola ngeen seq lépp muy sëriñ bi ak bokk ga ba tax na kon bis bi benn bis ëpp ko fi moom ndax xam na ne borom bis bi kenn ëpp ko fi moom ndax xam na lim doon ci moom xam na lim doon ci sëriñ bi xam na lim doon ci yoon bi kon yitteem ak yéeneem moo fi jiitu ak ñaanam itam xam na ni yéen ñi taxaw bis bi itam kenn ko ne ci yéen am nga loo seq ak moom ci kóllëre goo jàpp sa digg moom ak Pastef boo doxee sa digg ak moom ba tax na loolee rek dolli na ko ab soññi ci bis bi itam loolu lépp waxaale woon nañu ko bu ñëwee nañ ko jottali bu baax cantam moom ci bokk yëpp ñu taxawal bis bi ñu koy taxawu ñëpp xam na it ma nga fa di leen déglu lépp lu yittee kër gi luy seen yittee ma fa di leen ci déglu parce que yéene ànd ak yéen bam lépp mat sëkk damaa defee ne sëñ Cheikh kon yóbbante bi mu yónni woon kat te baa boo xam naa ko boole ci kàddu yi démb nag maa xamaloon nañ fàttali sëñ bi nag ne ko ndox mi sàkku aajo nañ ak ñaan fi mu ne leeral naa ko démb itam nag ne ko nag sëñ Cheikh Guédé nee ak ñu bari njëkkoon nañ ma ko wax ci moom ndox mi sàkku nañ ko ci ñaanal bindeef nañ ko lool ci àdduna sépp nag ci réew mépp itam nee naa ko it xaajub réew mi tàmbalee Tuubaa jëm njaamu rek ba sow ci noor lañ nekk ñaan nañ lañ jiwoon deewaat na la ci des saxagut bam ne mu ne loolu de li ma ciy wax mooy sama wàllu bopp damay njëkk a teewlu di si ñaan suñu borom ci barkeb sëriñ bi mu gàttal noo yërmandeem sax fan yi bu yaatoon naa woote waat bisum njàng ba waaye balaa may woote bisum njàng man maay njëkk ñaan sama borom si barkeb sëriñ bi mu gàttal noo yërmandeem ak xéewalam te ndoxum jàmmam bu barkeel bokk ci loolu itam loolu ma wax bii bi ma ko yóbbante ko loolu man ñëpp déggaale ko bis bii li fi jàng ki ñaan nañu ci fasaale loolu xam ne ñëpp ko aajowoo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah. di leen siyaare ci bis bu tedd bi di sant yàlla bu baax a baax ndax bis bi moom ñoo ko bokk muy bisub sëñ Mbàkke Soxna te kenn mënumaa tudd te tuddal sëñ Mbàkke Soxna muy cër boo xamante ne cër bu rëy la boo xam nañu ko ma ñëw di siyaare bu baax a baax di sàkk si ñaan di leen sant si taxawaay bi nga xamante ni bi ma natt bu dalee njaboot gi yëpp ànd nañ mettlu ko par boole ko di ma ñaanal ñaan googu tey moo waral li am am ngeen xam ne daal cër bii nga xam yàlla moom ma ko jox muy cërub àddina sëriñ Mbàkke soxna moo ko moom sëriñ Abdou Dia moo ko moom ndax liggéey la boo xamante ne ñoo ko liggéeyoon ñun ñuy ñëw teewal leen ci pencum ndawu réew muy assemblée nationale kooku nag ñu leen ko seedeel bu baax a baax a baax da xam ne daal seenu cër lañu seenu taalibe lañu lu ñu am yéen a ko moom ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu lii nga xamante ni maanaam moom la ñu nekk sama borom may ñu si nam dëgëral ñu natt amee sant nañ si yàlla ndax woyof na si ñun lool ndax bi mu geesoo gis leen ci la ci la woyof kon nag Mbàkke na nga xam daal euh, seenu dong laa ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu ci lii ñu jëm sama borom may ñu si ndam ndax président Abdoulaye Wade moo am ci man yéene ak yaakaar ba jiital ma ci Touba loolu nag cër la boo xam mi ngi si biir kër gi muy cërub député maa ngi sàkku nag cër boobu sama borom dëgëral ko ñu continuer ko le 31 juillet. ndax bu fi génnee tamit day dem si beneen kër rek kon na kër gi mu dugg na ngeen ñu jàppale ñaanal ñu si ba mu des fi ñu man see gën a liggéey sëñ Touba ci pencu ndaw réew mi loolu rek moom lool mooy tànk yi comme ñi ngi si liggéey bi may naa ñëw siyaare bu ko defee bu ngoon gee ma doog a ñëwaat nga xam bis bi daal ñoo ko bokk jërëjëf Mbacke ci ci turu kilifa yi bi yëf yi dalee ci sa kaw mel na ci mel na ni ci ñëpp la dal famille sëñ Mbacke soxna bépp ñëpp la métti waaye ñu xam ne nit ku ne la may liggéey ci ko yàlla di natt te nattu natt moom amul kenn koo xam ne kii weesu na ci yow feeg yaa ngi dund rek natt natt weesut ci yow tax na loolu bi mu amee suñu alaaji yi sàkkoon nag lenn ci njaboot gi man mi maa leen jiite woon muy kero bisub màggalu Mbàkke Daaru Salaam man ñoom suñ fàllu mi jiite Euh, muassasa bi ñoo àndoon ak yeneen ci mbokk yi ñëw ci sëñ baar ndax booba gëm nañ ne bu ñëwee ci sëñ Baara agsi nañ ci yow te booba yàgg jàpp jàpp nañ ne agsi ci sëñ Baara moo gën a yomb te ginnaaw suñu Baara moo nu boole yilif ñun ñëpp ñu dem ci moom won ko ne ko li dal ci kaw ci suñ kaw la dal ñoo ko bokk di ñaan yàlla nag mu fangal la lépp musiba mu naroon a ñëwati ci sa kaw te yàlla jeexale ko foofu te li nga yëngut yàlla defal la ci barki ci barki Cheikhul Khadim mbokk yi daal ñëpp métti na leen méttalu nañ ko naqarul nañ ko waaye dañuy xam ne lu yàlla dogal kenn mënu ci dara kon nag ameen ngeen leen ak cant te la nga nekkoon ba tax mbokk yi lu la dal dal ci seen kaw loola yit nga continuer ko waaw te te yaa leen ko ji donte mbokk gi am na it ba noppi waaye yaa leen ko ji kon nga sant leen gërëm leen te ñoo it ñu gën laa ñaanal yàlla àggale sa sa mission nattu nag weesu kenn foofu rek lañ koy féetale ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Baara moom it ku ku jàpp ci ci liggéey bi la ba mu demee waxtaan nañoo ñun ñu bëgg ci lool wan nañu li leen yëkkati xam na ko li ñu yëkkati xam na ko ndax li ñu bokk noo ko bokk noo bokk seen mbàkki soxna kon lu ci laal rek ci noonu laal yàlla na ko yàlla yamale te defal la ndam ci li nga liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah